am bi nga amoon mooy sa yaay mu ngi dund. voilà macha allah qu'est-ce que ça te fait euh, sans elle. heure bi c'est sûr que ci wetam nga waroon toog seetaan match bi quoi qu'est-ce que ça te fait ah et supporté. <laughs> non affaire bu garaaw. Mm-hmm. parce que dama dama doon euh, fàttali ko à chaque fois bu match amee rek. Mm-hmm. dama koy woo. Mm-hmm. mu ñaanal ma euh, mooy fàttali ko chaque fois Sénégal souhaite moom mooy souvenir bu ma dul fàtte sama sama àdduna sama life. moom sa yaay. parce que chaque match dama koy woo. Mm-hmm. ne ko mais ñaanal mu ne ma yàlla na yàlla jaar fu mu doon jaar. mais contre Suède bi. Mm-hmm. bu ma ñaanalee pare yàlla na yàlla fi jaar fu mu doon jaar. Mm-hmm. loolu chaque fois loolu ma la wax. mu ne ma nag suba incha allah di nga dugal ñaar parce que xam ne loolu rek laa bëgg. man but rek but rek mu ne ma suba si yàlla àndee di nga dugal ñaar. incha allah ko mais bàyyi li ngay wax waay. mu ne ma dama lay ñaanal ne amin. ndeysaan ma ne ko amin mu coupé ko mais si bu duggee def ñaar. sama xel fa dem si maire bi direct man ko maire yow fan nga jëlee ñaan mu ne ma non dama ko gént ba pare dama am yaakaar si yàlla ni yow ñaar yi di ko dugal mhm. la valeur comme comme li ñuy wax ku ne yàlla euh, ñaanu yàlla ñaanu ñaanu yaay mhm. amul rek nga fekk mhm. dalul comme fu may waxee en tout cas <laughs> sant yàlla sant yàlla rek mu nekk maire boo xamante ne mënuma ko fay mhm. ko waaw parce que loo moom la en lépp moom la lépp mhm. moom la dafa dafa yàgg rayante pour man mhm. depuis may nekk xale que ça a été compliqué moom rek moo d'accordoon pour accompagner la ci sa euh, carrière footballeur bi nga bëggoon entamer bu ma gisee ni loolu laa bëgg daf ma si daf ma doon daf ma si jàppale daf ma doon boole kay nit ñu may ñaanal voilà donc rëccu rëccu mu ko mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais toog sans moom métti na de. waaw na bu may annoncé dafa génn boobu maa ngi maa ngi euh, maa ngi woon Grèce. Mm-hmm. voilà. <laughs> ah zut. magnifique. merci donc. Euh, ah sant yàlla. waaw mënul ñàkk. yàlla na ko yàlla fay. teeru ko. si ajana yi gën a kawe. lii mooy àdduna. c'est une leçon aussi pour la jeune génération. ñu fonk seen waajur. Mm. parce que loo am te amoo sa ñaanu waajur. Mm. amoo dara. dafay sa baay. Mm-hmm. mooy tax loo am mu barkeel. Mm-hmm. sa ñaani ndey. mooy tax sa wërsëg di saawaan di mm-hmm. baawaan du suñu ay wax waxi mag la du suñu ay wax waxu alxuraan la oustaz moo tax wax na ko fii donc nit looy def da fonk sa ndey da fonk sa ndey fonk sa ndey soo ko fonk sa baay soo ko defee rek mhm. fël fëlaale bu ragal dara ah. li xale di bu ragal coco mhm. moo tax en réegi nii fël fëlaale ba toog arrivé sant yàlla gaynde buy jooy quoi sant yàlla si rongo ñu gaynde <laughs> sama yaay non c'est pas grave là